na ci li ci gën a fës mbirum lycée Ousmane Sembène bu Yoff nga xamante ne rek ay ndongo dañu attaqué woon na benn salle am lu ñu fa tojati Ousmane Dieye di élève nga xamante ne moom la gis ci vidéo yi muy wekki li nga xamante ne moo di fenêtre yi mujj nañ ko condamné benn weer ak sursis ki nga xamante ne rek moo di co-prévenu moom nag dañ ko mujj bàyyi mu di ñaari élèves yi nga xamante ne ñoom ci seen bopp ñoo ci amoon li nga xamante ne majorité ñeneen ñi ay mineur lañu ci bile xibaar itam jafe-jafe yi nga xamante ne askan wi ñu ngi koy am ngir rek tukki ci eh, seen eh, région wala bërëb yi ñu dëkk rek defi fa tabaski njëgu bi yi mel ni dafa yokk sax ba jéggi day oto yi itam noonu la jafe wàccaayu campagne électorale bi nga xamante ne rek moom itam ci bësu tabaski bi lay door di eh, dimanche fukki fan ci weeru juillet mu mel ni coalition yi nga xamante ne ñoo war a dem ci boobule jongante teewul ku si nekk rek teg na plan boo xamante ne rek moom lay amal ngir dérouler ay activité ma ñaareelu pàcc yi xibaaru bitim doon ak xibaar tàggat yaram ne suut ñu leen Safietou Bandiaye ci micro bi Chérif Bekay Diallo ci xarale gi ñu doore yile xibaar ak euh, élèves yi nga xamante ne rek dañu songoon salle de classe bu lycée Ousmane Sembène bu Yoff tojo di ko wekki fenêtre yeeg yeneen yu ni mel ñu woon mën wax ni rek ñu ngi woon janook ki nga xamante ne moo di àttekat bi ci tribunal bu flagrant délit bu Dakar ñaari ndongo yooyu nag ñoo nekkoon ci kanamu àttekat yi di Ousmane Dieye ak Ousmane Ndiaye ñoom ñaar nag ñoo ci ñoo ci nekkut mineur Ousmane Dieye nag euh, moom mi ñu jàpp ni mooy euh, cerveau yëf yi lañ jàpp ni mooy coupable euh, yi ñu jàppee rek destruction alal boo xamante ne rek alalu nguur la moom lañ nag condamné nañ ko benn weeru kasso ak sursis keneen ki nga xamante ni moo di ko prévenu moom nag dañ ko rek mujj bàyyi Fatoumata Diop. ñaari élèves yi di Ousmane Dieye ak Ousmane Diaye jàkkaarloo nañu ko juge bu tribunal bu flagrant délit bu Dakar ñu doon wuyu rek ci leen doon di toppee muy xamante ni nguur gi moo ko moom Ousmane Dieye moo gënoon fës nag ci vidéo yi ka nangu ne moom moo daal di rek yàq bile fenêtre Ousmane Ndiaye daal di niyee nag liñ ko doon di toppee ci kanamu juge bi kile di Ousmane Dieye ba tey daa rek dàq bépp tuuma bu ñu teg ci ndoddam ne moom moo jiite yile yàq-yàq naam joxe nañ ay explication waaye euh, procureur lu nu mel doyu ko ci biir réquisitoire am daa rek sàkku méngoo ko décision bu jukkee ci tribunal bile avocat yi leen ni layool la ñu sàkku appliqué ak na mu gën a rek woyofee euh, loi pénale bile bi muy jëkkati décision am nag euh, moom juge bi daa rek wax ne usmaan Dieye coupable la ci noonee it def na ko benn weerub kaso boo xamante ne nag du ko tëdd ak euh, kile di Ousmane Diaye moom ab relax lañ ko defal fukk ak ñaar yi nga xamante ne itam ñu ngi leen di tuumal ci mbir mi nu ñoom nag ci tribunal bu mineur yi lañ leen yóbbu seen procès mujjul antu ginnaaw nag convocation bu proviseur bu lycée bi ak itam agent judiciaire de l'État fukki fan ak juróom ci weeru sulet gi ñu dëgmal lañ ko fas yéene amal. Fatoumata Diop député bi di Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké mujj na am liberté provisoire ginnaaw audition bi nga xamante ne moom lañ ko doon defal barki jéemu ci foo dossier bi mu di xibaar boo xamante ne rek avocat bi di maître Abdinar Ndiaye dëggal na ko mu rafetlu rek boobu la décision ñu euh, teewlu ay doom tey ci suba le doyen des juges en fait jël na décision ordonner sa libération après l'avis du procureur de la république mu nekk décision boo xam ne nii euh, ñun ñëpp ñu ngi koy saluer parce que jàppoon nañ ni condition yi xam ni moo waraloon ñu war ko mën a bàyyi yëpp daje na ci moom ñu dellu di sant yàlla suñu borom di remercier également euh, de vive voix d'ailleurs le président de la république ci sens bi mu am en fait pour également pardonner euh, ça c'est c'est c'est c'est donc lu am solo la loo xam ne bëggoon nañ ko daal feeñal ci suñuy kàddu ñu wax euh, ci wàccaayu euh, feetu tabaski bi ak dakaar bi nga xamante ne mu ngi commencé wet loolu ndax ñu bëri ci askan wi ñu ngi dem euh, ci seenu village wala gox yi ñu dëkk rek ngir amal fa boobu le fête di feetu tabaski waaye nag garage clandestin yi jamono ji fees na dell ak nit ñi nga xamante ne rek dañu bëgg a wutali fi nga xamante ne rek mooy seenu dëkk waaye nag njëgu billet yi moom tar na lool ndax sax dafa mujj dem sax ba doublé oto yi itam gis ko jafe na lool tax nag nga xamante voyager yi suñu reporter bi di Younoussa Baldé Tassel mel ni rek dañoo jaxasoo. ay voyageurs yu takku la ñu fekk ci terrain bu nekk ci wetu stade Léopold Sédar Senghor daanaka destination yëpp am na fii. man Kaffrine laay dem. seeni mbëbët mooy passé ji tabaski bi ak seeni njaboot wante fii bëgg a dem taxul nga dem Ibrahima lii Kaffrine lay jëm. affaire moom metti na trop surtout tabaski bi nga xamante ne ñëpp euh, bëgg nañ dem te mënuñoo dem loolu tamit nekk na loo xamante ne nguur gi waroon nañ ci ekki nit pour chaque tabaski ni ñëpp mën a ñibbi waaye li li fa nekk loo xam ne dafa métti. parce jafe-jafe Fatoumata Bint Diallo mooy bi passé la jëndoon billet waaye mënagul jot ci téléphone borom garage bi tax mu mere ko lool. waa ñoom li ñu def nii tey rafetul dara te jekkul. te lii day yàq seen liggéey ñoom pour beneen yoon parce que man depuis mardi laa dagg ticket maa ngi dagg ñetti ticket trente mille man ak sama doom ak sama frère ticket bi dix la dèjà ñu ngi yokk ticket yi jox ma rendez-vous six heures du matin depuis six ngi fi. ñoom voyageurs yi sax waxuñu dara ci kaar njaganjaay yi ah ñoom biis yi ñuy xaar te fi mu toll nii biis yi ñëwaguñu ñun ñoo war a yëpp fi mu toll nii ñoom ñuy toog ne dañuy xaar biis yi leneen lu ñuy ñaawlu moo di ne seeraayu billet yi ci wàccaayu tabaski ba léegi ak njaboot yi nga xamante ne ñu ngi dund jamono ji ay jafe-jafe yoo xamante ne rek mu ngi ñeel dépense yoo xamante ne dafa mucc ayib ndax lépp cher si marché bi ci marché Grand Yoff commerçant yi clients yi jàpp ni lu ñu mel li ko waral du lenn lu dul wala sax bokk na si crise économique bi nga xamante ni moo lëmbee àdduna jamono ji donte njëg yi cher na loolu waaye nag du tee ba li nga xamante ne rek moo di seenu habitude maanaam daal li ñu tàmm def saa su ne ci feetu tabaski soppeeku ñu teewlu ci loolu teewlu reportage yu Ndeye Khady ñaari fan moo des ñu amal jullit tabaski ci marché bi njëkk yi wàññeekuwul benn yoon. blé mu ngi jar neuf mille sept cent cinquante ba dix mille. pomme de terre ñu ngi jour mu ngi yokk ay cinq muy kàddu yi astu seen di dëggal borom kër gi di wane xol bu jeex bu mu amee ci yokkute njëg yi. neuf mille soble am nga ne loolu seer na ci borom njaboot nga bëgg koo gën bëgg gënal sa doom yére ah bëgg a fay lu yaax bu seer bi lu yaax bu seer bi ndox seer courant seer xam nga loolu métti na ba pare xaalis amul. njëg yu cher yi sax bàyyiwul benn yoon ñi nga xamante ne ñoo jaay prêt à ba fi mu toll nii ñi ngi xaar kiliyaan yi. na fee neex lool tollal saa boo nii sa bagage day jeex waaye léegi da ngay jaay ba affaire yi jàll sax da jaay di remplir di di def waaye moom melatut comme avant daal. la nga daan yóbbu marché boo ko yóbboo marché boo ñëwee doo yokkute njëg yi euh, teewul benn yoon ñañu taseel ca marché Grand Yoff di ñu xamal ne du am benn soppite bu ñuy indi ci ni ñuy màggale jullik tabaski. campagne législative yi di door ci dimanche bi officiellement di fukki fan ah, ci weeru avril di bésu tabaski itam mu mel ne nag état major coalition yi ñoom ci seen bopp nag lancé nañ li nga xamante ni moo di compte à rebours yi ndax coalition Aar Sénégal moom dina door campagne am ca Tambacounda ah, foofu nag Benno Bokk Yaakaar fu ci jamono joo xamante ne Benno Bokk Yaakaar moom nag dafay privilégié maanaam daal di jiital li nga xamante ni moo di caravane yeeg visite à wi ngir lancé moom campagne fii ci Dakar ngir pour yeewi askan wi nag moom seen stratégie wu campagne dinañu ko fësal ci waaye sax wala sax euh, day dépendre ci localité bi nga xamante ne rek fa lañ jëm nankoo ba koy ko ginnaaw bi ñaari fan dese ngir ñu ubbi campagne électorale bi ñeel woote législative yi waa coalition à Sénégal ne lépp yemb na bés bu njëkkub campagne électorale bi di tombeek bésu tabaski bile coalition fas yéene cee def déclaration bu ñu doyloo Théodore Chérif Montey yi nit ñi dañuy dem di saafonte baalante ak loolu dinañu permettre tamit ñu dem gis population yi waxtaan ak ñoom dinañu wàcc côté Tambacounda foofu lañ bëgg a commencé suñ campagne yéeg vers Kaolack après Dakar meeting yi moom du bëri parce que meeting day dajale ay nit yoo xam ne du ñu nekk forcément ñoo xam dinañ la voteel li ñu gënal daal mooy dem seeti nit ñi waxtaan ak ñoom expliquer suñu contrat de législature campagne électorale nag jamono bu am solo la ngir saafonte ak askan wi waa coalition Bokk Yaakaar Dakar fas yéene ful caravane yeeg porte à porte yi ngir gën a jokkook askan wi Pape ma Diouf. caari mbokk yi tàmbale ko ci Dakar nag Pikine Guédiawaye Kër Ka ñaar fukki fan nga xam ne dinañ def fépp ci Sénégal présenter programme ak projet bi nga xam ne moom la président ci Sall jiital ànd ci ak majorité Benno Bokk Yaakaar li ñu gën a fësal nag mooy jokkoo bi ak population yi directement mooy ñu di ko bi ñu jokkook moom ci téléphone Déthié Fall de xam ne ne coalition Yewwi Askan Wi ñu ngi waajal bu baax campagne électorale bi naam sax ne seen calendrier surchargé na lool. Euh, ci euh, cérémonie lancement cash euh, transfert ca Kolda loolu nu mel nag tax ba ñi nga xamante ne ñooy dund ak laago fësal rek seenub nakar wala sax seenub frustration ñoom ci seen bopp nag li ñu xamle moo di amul kenn ci ñoom koo xamante ne rek bénéficier na ci yooyu les cash transfert ndax nag bokkuñu ci registre national unique bi El Hadj di président communal bu fédération nit yi nga xamante ne ñooy dund ak laago di sàkku rek ñu rectifié waat lu nu mu gën a gaawee ñu teewlu ay kàddoom moom El Hadj Sané dañu am métit dañu am naxar mooy ñun dañu bokk Sénégal ñun duñu tàllal loxo dañuy liggéey daan suñu doole ñun ay borom njaboot lañu état du Sénégal Macky dafa ne cash transfert bi Macky moo ko njëkk joxe moo njëkk def lancement bi donc tey askanu handicapé kenn bokkul ci registre national unique buñ koy def ay jamono fukki at léegi dañu ne woon waa ay borom njaboot yi lañ ci bind mais ana ko gën a doon handicapé borom njaboot. madame le ministre de la santé askanu handicapé say njaboot lañ concert du président la république ay satu Cissé boo doon xelal Macky Sall nekkaloo fa sa bopp kon ñun askanu handicapé dinañ doon bokk ci registre national unique defu leen ko donc seen démission war na leen su ngeen ko defee war na leen su ngeen ko deful war na kon askanu handicapé Kolda kontaanu ci yéen te seen i njaboot la ñu bokk. amul benn handicapé buy jot ci cash transfert bi maanaam registre bi handicapé bokku ci. président Macky ñu ngi lay ñaan nga fexe ci bés boo jotee suñu bataaxal bi ci seconde bi nga génnee décret conseil des ministres ne bés ni tey askanu handicapé askanu village de reclassement nañ leen a sotti ci registre national unique registre bi dafa màgget xibaaru biti réew ñu dooree ko ca Burkina Faso mu waroon nekk nag moment bu historique bu kenn dootul fàtte aljuma ji fukki fan ak ñett ci weeru juillet ndax président bu transition bu Burkina Faso di lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba dafa woowoon lu toll rek ci juróomi ancien chef d'état burkinabé ci palais présidentiel bu Koussiam mbébét bi nag euh, du woon lenn lu dul rek lancer réconciliation maanaam déggoo national gi rek gën a mën a xeex lépp lu jëm ci wàllum terrorisme tourisme bi nga xamante ne daf leen di gën di sonal di dem euh, ci occasion boobu sax si le président euh, Dami Ba fexe wala sax may ki nga xamante ni moo di Blaise Compaoré mu del ci ci réew mi waaye nag ñaari ancien njiitu réew rek ñoo teewoon ci boobu leen ndaje ñu dem ca États-Unis ak lu ëpp ñaari semaine ginnaaw bi ñu annulé droit à l'avortement ca États-Unis Joe Biden dina ko lu projet extrême euh, bi nga xamante ne rek jàpp na ni moo am foofu li critiqué ngir rek réaction bi ñu jàpp ni rek euh, dafa doyul benn yoon président bi nag di annoncé ni dina amal ay série de mesures yoo xamante ne rek daf koy jagleel aar wala sax défendre li nga xamante ni moo di accès doomu Amérique yi ci médecine reproductive waaye nag euh, porté yooyu le décrets dafa mel ni narut euh, fës lool. xibaaru tàggat yaram dañ koy doore Coupe d'Afrique des Nations euh, féminines Maroc 2023 Sénégal enregistré nag defetam bu njëkk ñeel troisième ak dernière journée bu phase groupe euh, de bu kan féminine bi mu di nag defet boo xamante ne euh, dina tax mu perdre place am ci groupe A bi waaye également Lions yi ñoom ci seen bopp Lions yi nga xamante ne rek boobu ba léegi dañ leen a logé ca Rabat ca Maroc dinañ rek déplacé utali fi nga xamante ni moo di Casa rek mën li nga xamante ni moo di quart de finale yi sélectionneur bi di Mame euh, Moussa Cissé taxul nëbbul benn yoon li nga xamante ne rek moo ci déception ci benn daje bu mu doon amal ak taskatu xibaar yi Sadio Habibou Ka. Mame Moussa Cissé nanguwul defet bi nga xamante ne am na ko ci kanamu Maroc sélectionneur bi jàpp ne cas yi nga xamante ne ay joueurs mi am nañ ko loole dafa mel ne jaaru di yoon mu am ca nag xel ñaar. Comme par hasard après euh, l'Ouganda c'est le Sénégal c'est peut-être tard, mais c'est quand même euh, un peu bizarre. À 48 heures euh, du match, on change nos téléso sans qu'on sache pourquoi. joueuse bi di Astou Ngom nee na naka collègue yi dañoo amutoon chance rek. démérité wu on a tout donné joxe na lépp lu ñu mën. ci loolu nag équipe jàpp na ne mën na romb quart de finale yi te loolee adversaire bu mën a tasee la dina jàll. quel que être l'adversaire ce sera à de lever notre euh, niveau de jeu. nous avons un groupe qui a àllarba bi gaynde yu jigéen yi nag équipe bi ñuy taseel mooy ki nga xamante ne moom mooy jiitu ci classement bu groupe B ci diggante ñetti équipe yi muy Tunisie Zambie wala Cameroun fii ci Rabat Sadio Abibouka pour Zik FM Sadio Abibouka ci euh, élément tàggat yaram boobu sax lañuy ndax keppe xibaar yi Safietou Ba Ndiaye nekkoon ci micro bi Chérif jàlloo ci xarale gi ñu leen di euh, jaajëfay bàyyi leen